Euh, ni muy doxalee parti bi doyatuñu ñu jël suñuy matuwaay ne dañuy refondé mm-hmm. refondateur yooyee ñoo ma santoon ma wut màkkaan màkkaan mm-hmm. moomu moom nga gis tey nekkul provocation du provocation euh, ñun sax bi ñu koy jël ñoom amuñu màkkaan mm-hmm. amatul woon parti bi ndax fekk nañu génn ñu ndax ñàkk fay luyaas euh, man comme objectif yi ma joxoon moo doon ma def congrès juin 2017 def tournée nationale waaye ubbi siège boo xam ne fi la ñuy mën a daje ndax suma kër. dafa xatoon ci nit ñi ni ñu doon ñëwee ak ni euh, réunion yi war a tëddee. waaw loolu moo waral ñun ñu ubbi suñu siège. waa mais mais xam nga ñàkk fay lu yaas moom bu ñu ko yëkkati di ko teg ci euh, kaw ku mel ne Idrissa Seck tamit xel dina dina dina dina doy waar ndaxte. Euh, euh, moom euh, la mu nekkoon ci ancien premier ministre ak député yi mu am ci assemblée nationale te fii réew mi baaxoon nañu képp képp képp koo xam ne yaa ngi nekk ci parti parti ba yebal la assemblée nationale wala sa nga nekk ay direction générale ak yooyu ngay comp aslëf ca sa salaire pour fay siège waaw ñun ñun député yi moom li doon sunu waru gar ñu ngi ko doon def weer gu ne waxoon naa trésorier bi muy mm. dagg ci soldu député yi mm. ñu koy jox Samba Bathily ñu koy jox waa parti bi mm-hmm. donc ñun li ñu warloo woon ak parti bi mm-hmm. en tant que député ñu ngi ko doon def mm-hmm. waaye du ñu yem foofu kenn ku ci nekk fa nga dëkk di ngay jël ci sa salaire di ci dépenser euh, maintenant euh, lu tax ñu génn ñu ci ci màkkaan bi ñu nekkoon foofu maanaam permanence bi bon xëy na da ko mënatut a fay. Mhm. ndax du ñu jëloon engagement pour fay. Mhm. waaw xawoon na seer nag wax dëgg yàlla. Mhm. mais dama jàpp ne rek xam nga booy yàqule. ci fànn gu nekk la mën a ñëwee. ndax buñ ñu demee ba ñun en tant que réew mi. mënatuñu fay siège ça veut dire que. Euh, ki ko jiite responsabilité am moo ci ëpp en tout cas. Euh, c'était extrêmement grave. te it du woon benn yoon. man. ci bu ma fàttalikoo siège bi njëkk a am bi parti bi sosoo mhm. te mu nekkoon ci kaw VDN bi mhm. dañu faa bëggoon a génne mhm. man ci samay pexe bu ma ko fàttalikoo mos naa lijjanti lu waram toll ci juróomi million jox ko daaw Faye pour que borom kër gi continuer nu ngu ñu fa bàyyi ba ñu fa jógee amatuñu siège yàlla dogal 2011 ñu wutaat beneen yaakaar naa ne Fatou Sock sax moo ko doon démarché ñu signé contrat yi ah mais dañoo dem a dem ba waa ji na nag génn leen sama kër donc bi coow li amee nag ba refondation bi kii man li ma war mooy comme man ak ñoom moom mënatuñoo bokk jotaay ma wut fii bu weeru de ma fay borom kër gi. d'accord mat na alors euh, euh, gis nga euh, la nga xam ne moo tukkee ci dialogue Euh, nationale bu président Macky Sall woote woon mm-hmm. am parti ya dem am yoo xam ne demul Idrissa Seck ca ña demul la bokk mm-hmm. mu ñaawlu nag ca gannaaw ga lool lool mm-hmm. li euh, euh, parti démocratique sénégalais deme Euh, ak tamit ñeneen ci waa opposition yi nañu dawee daw dem dafa jàpp ne loolu trahison la ca ba ba pare mu dollu ci nag ne dil la bu mag boo xam ne euh, Ablaye Wade président ancien président de la République ak président Macky sàll ñoo ko tëgg ñoom ñaar lépp rek pour libérer Karim wàdd ak tamit dal ci kawam. Idrissa moom yàlla euh, teg na ko coono. dëgg la ndax coono bi ko yàlla teg moom dafa jàpp ne. Sénégal moom alali boppam la mhm. maanaam dafa war a doon rek président de la dafa jàpp ne moom dafa programmé boppam pour doon mhm. président mhm. ñàkk a demam ci dialogue ba maanaam euh, dënnam ak xolam ak xelam mënul nangu président Macky Sall toog di jox nit ñi parole moom loolu moom wax dëgg yàlla dina gis ci moom mënu ko supporter loolu nag bu fekkee Sénégal dañoo yeew di voté 65 pour cent yi ni kii moonu doy ke ñooña doy yow nga ne duma def nangam ak nangam ak moom mm-hmm. yow doyadiloo président bi waa Sénégal nga doyadiloo mm-hmm. ba pare da nga cee boole ak ñàkk gëm yàlla mm-hmm. ñu doon euh, amoon jafe-jafe ba yàlla dox di àddina di dox ba yàlla bëgg rafetal seen diggante diine nungu na ko aada nungu na ko moom dafa jàpp ne comme doole ji ko jox réew mi amatu ko mu yaakaaroon ko ci PDS. Mm-hmm. te PDS seen candidat yàlla dogal na ma nga biir kaso. Mm-hmm. donc li gën a yéeme nag mooy toog naa bis am ku nekk Touba ci responsable PDS yu mag yi. Mm-hmm. mu ne ma man de li ma jaaxal ñi ànd ak Idriss Seck fii de ne nañu bu ñu sañoon Karim Wade du génn. ma ne ko ah, de mu ne parce que chance Idrissa Karim des comme ça waa PDS des, demee dem ba candidat ça c'est grave non c'est très grave parce que mhm. moom jàpp na ne moom munta dara mhm. ni Senghor defe Abdou Diouf def ko. Mhm. Euh, Ablaye Wade def ko Macky def ko moom jàpp na ne rek lu mu yor rek benn parti jàmbur. Mhm. boo gisee mu bëgg lool coalition. Mhm. waaye moom wóolu xeeb na dooleem. gis boo mairie Thiès jox na ko keneen. waaw mu ko jox sax suma xarit la. waaye. Ah, ñam ñeneen ñamu àndaloon. di liggéey itam bu leen ko joxoon. Mhm. bëggoon nañu ko def ci suñu groupe parlementaire ma bañ. Mhm. nu ma ne ko nungul naa la ñu joxe présidence bi de. Mhm. waaye vice président bi moom danga koy jox Samba Bàcc. wala nga jox ko moom du Faye ñu jàppante ca bi coow li amee ma ne ko man génn naa ci groupe bi ndax it lenn li yabel la dëgg la ànd ak ay nit te yéene woo leen dara yéene ay jàmbur wax dëgg yàlla ba ñi mu àndaloon ñépp ci partie bi wëññi naa ci lu toll ci ñaar fukki nit ak juróom. Mhm. ñu nekkoon ci direction bi ñëpp bàyyi ko. Mhm. ma jàpp ne picc buy naaw. mètre mhm. bu ne donc wadd. fi muy jëm. du sori moom daal dafa war a xam ne yàlla mooy tudd ci nit président de la république. jàmm ji président Macky Sall woote nag. man bu doonte ne dañ fay paas. pour dugg fa bu dee leaderu parti nga. nga bëgg a jot ci senegal da war a dem jënd billet dugg ndax ñi nga xam ne euh, ñoo nekk ci sa ginnaaw te ànduñoo mag Macky sàll sax dégg la nga ne ko yow nangam def nga ko lu baaxut nangam def nga ko baaxut seen xol sedd ci loola du nit koo xam ne mos na fee def wala mu wax fi loo xam ne nit ñi téye nañ ne jàpp nañ ne lii lu dul daal jëmul ci boppam gisu ci le wala ko ci. Mhm. mu conseil suprême bi suprême bi. Mhm. def ci ancien premier ministre. Mhm. ancien général ancien président dafa ne kurel gu mel bu dinañ ko xam nga suprême <laughs> président de la république sax koy pexem wut tam ñi mu ko seqal du ñu ay dof mhm. xam nga euh, affaire libération Karim wàdd boobu euh, euh, ni ñu ko junjee léegi mooy effectivement bu fekkente ne Idrissa moom dafa yaakaaroon ne Karim Wade bu defee prison PDS élection présidentielle léegi ak législative yi di ñëw dañ ko soxla moom dinañ ko soxla moom kon foofu lajj na fa ba ca des mooy est-ce que nekkul loolu moo tax ba moom seetiwul kenn musul dégg en tout cas man dégguma fu mu seeti jee Karim Wade Ah, prison xam nga man ñàkk seeti gi nag wax dëgg yàlla su ma yeboo ne man aw ma ci responsabilité ndax. Mm-hmm. mos nañoo woo ci siège ba. Mm-hmm. juróom la woon mu ne man daal jàpp nañ Karim dama bëggoon ñu xalaat naka la ñuy def. Mm-hmm. yàlla dogal ma njëkk a jël parole. ma ne ko man de jàpp naa ne li nga seq ak papaam. seq ko ak moom. da ngay jël li ci rafet. Mhm. nga bàyyi li ci ñaaw. Mhm. nga dem ñu wutal la permis man boo ma ko santee sax ma dem tribunal ñaanal la permis mhm. boo ko defee amul benn sénégalais bu la ciy xeeb dañ naan li nga def rek rafet na. bi ma waxee loolu ba pare mu ne ma pare nga ma daaneel mu jox ñi ci def ñépp. ñooñu wax safaanu li ma wax. mu ne ma yow de ñii mettre nañ la en minorité. su ma mànduwul woon lool sax dama ne xëy na moom loolu lu mu waajaloon la ba ku nekk xam mhm. position mhm. a ah ma ne ko waa defal la li ñuy wax mhm. dem na sax ba ay temps ma dégg ci biir dëkk bi ne moom bëgg naa mi ngi hésité pour dem seeti Karim mais xam naa ne am na gàcce pour dem defi lu mel noona su ko defoon xëy na digganteem ak Ablaye Wade digganteem dina gën a ratax waaye comme moom bu fekkee gëm naa la ñuy wax ca Touba de. Mhm. ne ñoom bëgguñu Karim Wade génn. Mhm. ndax moom daa bëgg a doon président ci place Karim Wade xëy na mhm. ndax Karim Wade sax kenn xamul dina doon wala ah, du doon waaye daal PDS ne nañu mooy seen candidat mu bëgg nag candidature boobee bu Karim Wade ba mu jël ko aaki moo ko doon président mais kon fi ñu xam nga moom bu doonoon président sax Karim dootu ko doon ndax lan non dama xam li muy xalaat ci papaam xalaat xam li muy xalaat ci ci Karim Wade. mais mais mais ni muy ni muy parce que gis naa benn interview bu mu génneel euh, ci premier juin bi ci tribune mi ngi ci wax ne moom ba mu génnee euh, euh, PDS ci la Karim Wade commencé di cëpp cëpp gi mel noonu kun ku dégg loolu dégg tamit na mu waxee ca RFM keroog ba muy réagir ci suite dialogue bi. da nga naan dafa may dafa dafa am benn haine bu mag a mag benn rancœur bu mag si diggante ñoom ñett ñooñu daal kenn xamul nag euh, lan lan lan lan mooy source haine boobu mën na am sax mu mere leen mhm. mere bi mën na ko justifier parce que jàppoon nañ ko tëj ko ci mhm. kaso bi mhm. waaye mer day jeex day jeex loolu nag moo ko jafe xam nga nit fekkee ne da ngay jàpp rek te doom bàyyi di wax nii léeg-léeg nga reetaan wax waaye ci sa biir xol ñi la xam dëgg. Mhm. xam dinañ xam ne yow mii. nekk ndax dama lay nettali benn affaire bu mës mhm. a xew ci réyon mhm. da am réunion boo xam ne yaakaar naa sax keroog laa fa mujj. secrétariat mu wax ci Ablaye Wade lu yàgg wax ci Macky Sall lu yàgg. ki ma làngal ne ma gis nga moom buy tudd ñaar ñooñu. gémmiñ gi day mel ni day day xeeñ een ma ne ko ah. mun ne ma xoola rek saa su bu da mel ni. maanaam bañ na leen bañ goo xam ne. Mhm. yéemu na yéemu na trop. loolu nag wax dëgg yàlla. Euh, du yëfu jullit parce que nag affaire bi du ñun ñii. Mhm. Sénégal la. dëgg la parce que bu fekkente ne man a yow xuloo noonu nu mhm. war a daje pour liggéey affaire état ma ne du ma dajeeg yow. ça veut dire que man matuma homme politique bu ma doon mhm. waaw mer mi ma la mere dama ko war a teg fële ba ñu pare euh, jiital li nga xam ne moom la ñu Sénégal sant mhm. muy wàllu état muy wàllu parti ak lu mën a doon ñu waxtaan ci buñ juboo ku nekk dellu ci sa mer dellu sa kër ah, bu ko defee neexee dootul dem kër Macky Sall di fa ngonnali ah. ndax da ko daan def bu ko neexee bu ko Ablaye Wade téléphoné mu lànk ne du ko jël ah. mais mais dafa ngonnali kër Ablaye kër Macky waaw man kay ñëw naa ba taay mu ne ma bii trois heures laa fa jóge mais mais loolu ba ba ba Macky Sall nekk président de la République nekkee président. dafa daan ngono mais mais xam nga xam nga ngonoon googu euh, euh, moom moom wedd na ko wedd na aussi ne ndax. Euh, fan la ko weddee. que daawul dem kër Macky Sall. non en la du benn du ñaar du ñett. mais wedd na en tout cas la la la ca nit ñi. nit ñi ne tey fa jógee ànd daan neex deret lool ma xam ne. xëy na ngonal la rax na maanaam Marème Faye yemul ci jox ko reer rek. yemul ci jox ko reer ak ah, <laughs> naa <laughs> xaalis mais nag xam nga justement xam nga loolu man euh, je m'appelle euh, euh, Idrissa amoon na ay jegeñaayal Macky Sall président Macky Sall yu ne woon Idrissa taxi moom yu ñu métti daal daa yeneen daa fayul naar bi moom da président Macky Sall may na ko fi xaalis ba taay jox na ko ay enveloppe ba taay ba fin de mois mu weddi ko. daana ko jox moom. enveloppe yi. waaw nun nag daaw na ko gis. Mm. waaye dinañ ko yëg. di nga yëg ne Macky Sall jox ko président Macky Sall jox na ko. xaalis moom Idrissa wu ne. président Macky Sall jox ko xaalis moom Idrissa. chaque fin du mois. lu mën a fay permanence bi ñaar fukki weer. par weer la koy jox. maanaam mm-hmm. Mm-hmm. Euh, moom daal wax dëgg yàlla yenn yi sax jarul mais daal. Euh, mais bu kaa yéen. li ko tax a li ko tax a tàggoog mag Macky daal jaaxal na ma ndax it je sais que Macky xam na ne Idrissa ko mag mhm. jox na ko cëru mag mais Idrissa day fàtte ne Macky mooy la République ndax bi ñu amee problème man dox naa ci ay jéego mhm. pendant huit mois lu ne ma def ko pour ñoom ñaar duñu tàggaloo mhm. ndax dafa am benn bis ma ñëw bi coow li tàmbalee ma xaw ko teste quoi ma ne ko dama bëgg nga wax lu leer ndax da ngay ànd ak Macky Sall mhm. wala doo ànd ak moom mu ne ma noonoo man dama ko bëgg a jàppale mhm. ndax sama rakk la ma ne ko bu dee dëgg ci yow nag mhm. comportement bii ak bii ak bii nga war am donc bi coow amee bon ma dem ci président ne ko daal su sañoon ngeen woo toog waxtaan ngeen tëju ci nekk bu ngeen génnee kenn du xam xuloo ngeen kenn du xam mais daal ñun ñi topp ci seen ginnaaw ñun ñu xam ndax ñun Idrissa moo wax ñu jàppale la man ba ñëw bokk ci coalition bi te dafa may gêner trop ma nekk ak ay nit te xam ne yéen ñii yéen ñaar am ngeen jafe-jafe président ne ma li nga wax rafet na daal jàpp sama loxo ndax ci mbooloo ne ma kaay ma wax la maag moom li nu tëral li nu li nu waxtaanee ma ne ko du ma soxlawu ma koo xam ndax wax na ma ko lenn daal laa bëgg ngeen juboo mu woo keneen ci jege ñaaleem ñi ne bu ma ñëwee voyage na nga wax Omar ndax bu ma sañoon bala may toog ak Idrissa moom wax dëgg yàlla dinañu retaxal diggante bi. Mm-hmm. ba jotaay ba mën a yomb. Mm-hmm. yàlla dogalu ko. Mm-hmm. ba jour bi ñu nee dañuy bàyyi jour bi ñu ne dañuy bàyyi maa ngi ci bureau Moustapha ba ñetti waxtu. ginnaaw tisbaar parce que président moo waxoon Moustapha Niass mu wax ak man. pour ko man ma wax ak Idrissa Seck. bon ba après dañ ma néewal doole man ak Youssou Diagne la woon. xale yi néewal ñu doole. ba rupture bi am. bon rupture bi am na d'accord mu ci woon. Mhm. mais ci parti nekk donc discipline de parti. Mhm. ma ànd ca. d'accord mais mais mais mais euh, Idrissa euh, defe naa euh, ñu bëri en tout cas man mus naa ko ko wax moom mu toog ma toog man ne ko man li ma gën a merewee mooy loolu. DVD euh, euh, yooyu mu fa na génnee CD yooyu ay lui et moi affaire yooyu di di révéler quand ay secret d'état te te la preuve dafa naa euh, moom lañu moom mooy pap moom la ñu war a bàyyalee li xew si réew mi tey li nga xam ne ay dérive la ba léegi kenn kenn kenn wóolatul waxtaan ak sa nawle téléphone moom kenn ah, ndax enregistré yi donc loolu jamono jooyu yaa ngi doon ànd ak moom nekk fidèle compagnon am mm-hmm. sa responsabilité foofu tamit man gis naa ko fa dëgg la am naa ci responsabilité ndax bi nga xamee ne CD yi pare na xaw ma nag sax wax dëgg yàlla kañ la ko enregistré ak fan la ko enregistré waaye bu CD waraan génn man mii maa ko daan yor maa daan woo ab journaliste wala ma distribuer ko toutes les radios maanaam amul benn responsable ci parti bi bu doon gérer loolu lu dul man mais bi ma demee ba mu génn kaso comme CD man yi ma yoroon gisuma ci lu dul nu ñu fexee nu mu génnee mu woo ma bis woo Pape Diouf diglu loonu benn ci biir néegam ma ne ko bii de moom du bokk ci yi ngay teg ndax yow boo ko tegee bii moom bu génnee yow mii sax doo ci mucc ndax dinañ jël sa bakkan te yow bu dee danga bëgg senegaal lii moom waroo ko siiwal lii du lu ñuy siiwal daal di jóg dem bàyyi leen fa mm-hmm. ma toog ab diir mu woo ma ne ma li nga def la ñuy wax kenn du ko teg ma ne ko loolu de laa mën a nungu donc mm-hmm. su ma responsabilité mm-hmm. moo doon nu may fexe moom ba mu génn ci kaso bi wax dëgg yàlla mais mais quand même rëccu nga seede yooyu war nga ko rëccu non rëccu ma ko parce CD yi ak ñun niñ doon xeexee mhm. tax na man li doon sama objectif ca jamono jooja mhm. yalla dimbali ñu ci moy mais sa détail yi mu yi mu génneel ak mom Idrissa ba légui ni ñu bëri wolu ñu ko ah, lool lool ci ci la ci la créé ben rupture entre mom ak sénégalais yi parce que deug deug da nga naan ki nekkul ah, ah, parce que fofu wane fa taxawayu kilifa waxé fa tamit taxaway nit euh, nit kessé ndaxte té ak sa sa nawlé ñittu réew mu wolu la nga nga nga nga taasi téléphone di nga enregistré bu xaar ëlëk arme bo xamni dañ ko mën a tegal ko ko loolu ñaaw na rafetut mais xam nga ab xeex moom bu tàmbalee. Hmm. pour ne loo am rek ngay sànni. ngay sànni ca marché ba daal waaye cassette bi ma ko tere moom daa hmm. jotewul dara. Hmm. ak loolu moom leneen la yàlla du ko wax ku yàlla bind. maa moom ak ko ko fekke daal. nun xam nan la ca nekk waaye du ma ko nett li kenn. ah loolu rëy na man sax dama ko nettali. déedéet waaw kon ma jàll ci leneen euh, euh, président Macky Sall euh, pour ñi nga xam ne dañ ci doon ñaabañale ak di ci am ay dut yu ndaw wane na ci ba mu nekkee fii ba léegi comme président de la République moo Macky Sall que ni c'est un fin tacticien mm-hmm. te doomu Ablaye Wade dëggantaan la en terme de stratégie mm-hmm. gis nga. na mu euh, euh, lijjante allié mi mhm. waaw te boolu dara wax mhm. PS ak AFP euh, xar nañu ñaar mhm. opposition bi tamit bërki de moo njaay ca pale ba toj na ko waaw PDS nga xam ne mu ëppoon doole ci opposition yoo lekku na naa nga dem toog fee di waxtaan ñoom dëkkuraaw ak ñoomin seen ña nga fee taxaw seen seen seen bakkan yi di nàcc deret ndax dëkkuraaw moom fan la toj tojul fenn tojul fenn. non tojul fenn du courant dëgg la mandat rek la bëggaat. Hmm. moom tojul fenn. tojul des nag moom. Hmm. est-ce que Macky Sall stratège Sall daal sénégalais yi ñoo ko fal. waaw pour mandat. Hmm. li nga xam ne moom mooy. moo koy sigil. mooy ñu falaat ko. ma ñëw ba tey ah, ci euh, yow li la concerné parce que junj naa ko ca euh, début waxtaan bi mooy euh, Idrissa Seck. Euh, euh, euh, dàq na la ci partam su officiel am na nag nam ko defee ak yu mel noonu mais xaama tagal la ko moom nga nga nga nga déglu ko ah na na mu ko defee maintenant la fédération de Mbake a demandé à mon grand regret l'exclusion du frère Omar Sarr qui est un compagnon peut-être égaré peut-être euh, impressionné par le pouvoir, entrepris par euh, les Mustafa Diakhaté et les... Mais un grand compagnon que je perds, bon, j'y peux rien. Euh, voilà, il est exclu du parti, c'est dommage. de Seck mu tourné noonu sa page rek ndax yow président Macky Sall dafa jaar ci euh, Moustapha Diakhaté président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar xëy na jox ko benn enveloppe bu fort bu diis dégg pour jënd la moo tax yow nga dem béjjën Idrissa Seck bon moom lii mu wax nii mm. bon bettuma sax nag ci moom mm-hmm. mais am na lu bari lu ma bañoon a def mm. man may na ma occasion occasion <laughs> ndax bu yaakaare ne man Oumar lu ab lay Wade mënul ci woon ci man mm. kenn musu ko man ci man mm-hmm.

te yow mosoo ko nekk te noo bokk liste bu mu mm. faloo mm. mu ñëw sama kër ma ne ko daal dinaa ci def loo xam ne mën nga jaawale sax ne man maay président groupe mm. yàlla dogal soo waññoon cent cinquante députés yi man la ci gën a xaritoo mm-hmm. est-ce que pouvoir daf ma impressionné kon ab Wade nommé woon ma ministre ci yoon parce que yónnee nañu ay ndaw ci ba tàyyi ci man mm-hmm. ne ma bu président bu ne na bu la séenee rek mm-hmm. signé le décret de nomination man yàlla dafa dogal fu ma juddoo ak yar bañ ma yar ca Touba ak Kéré mhm. du ma nitu àdduna mhm. maanaam alal damaa munta këf mhm. yow boo ma xoolee rek xam ne man du ma nit ku bëgg àdduna moom jikkoom la ma féetale parce que moom ba mu juddoo ba tey jàpp na ne moom dafa war a doon président donc am pouvoir kon nag taalibe murit xam nga day oyof waaw donc vraiment Euh, li mu wax moom. waaw mais exclusion bi exclusion ah, bi moom comme yëfi xale la rek. xam nga moom xamul comme jàngu texte parti bi mosu koo lire. mais man loolu parce que texte parti bi. bi mu paree man maa ko toppatoo maa dem imprimerie. Mm-hmm. defar ci presque ay 200 300 exemplaires. di ko distribuer moom bu daan tukki sax man maa koy defaral paquet pour que partenaire yeeg yooyu ñu ñu ñu ñu xool lan la parti bi kii. ay jaar mais naka nga mën a wax ne Idrissa mu créé parti ko parce que moom euh, lu muy def rek da koy def maanaam Idrissa du toogal lu lii dara dañ koy nettali rek léeg-léeg ñu wax ko li am léeg-léeg ñu maanaam dafa dafa yàlla dafa dogal mu tayal dafa tayal dama lay nettali rek lu tax mu ne ma wax leen dafa tayal mm-hmm. dama am nekk ak moom ñuy liggéey fële ci Saly mm-hmm. je mille 2011 la mm-hmm. mu nekk ci biir piscine bi ma toog ci bordure piscine mu ne ma man de bu ma doonoon président comme président PDG koka kola laay def ma ne ko moom lu muy def <laughs> mu ne ma moom weer bi quatre heures la ciy liggéey. Hmm. ma ne ko waaye mais Sénégal du entreprise. Sénégal du entreprise ba nga jàpp ne yow ñeenti waxtu rek nga war a jox askan wi. maanaam. erreur mënut a weesu. loolu xalaat boobu xalaat boobu. Mm-hmm. te loolu mu wax dëgg la ci moom. daf ko gëm. maanaam moom jàpp na ne àdduna bi. Mm. yoral sa xaalis. waaw nekk ci ker gi. nekk ci ker gi. waaw di dund am ñu lay liggéeyal. waaw maanaam daal nekkatul nag jamonoy maam nga xam ne ay buur. Mm-hmm. te it Sénégal buur bu sant Seck. waaw waaw dégguma ko mais mais mais mais mais ci ci ci exclusion bi. Mm. Euh, euh, liir naa benn interview boo def ci l'observateur nga nga wax ne nga wax daal bu junj ne waa fédération Mbacké xëy na amaana ñu porte ko plainte xaw ma yooyu. boo ñëwee fii Ndakaaru Ndiaye dem fee woote sa permanence. Mm. jàmmalaay. Mm. ne fédération Touba ak Mbacké tooñ ñaay jàmbur. Mm. ñoom ne nañ dañu woote réunion porte ko plainte. ndax ñoom ñoo jënd carte ya. ñoo monté secteurs yi. ñoo xam nit ña ñoo yore mm-hmm. communes yi nekk ci mm-hmm. département bi yëpp mm-hmm. dina leen wax moom ci yan firnde ak yan militant loolu bu demee parce que dafa def faux ak abus de dafa usage de faux et faux la def bu ko defee mu wax juge bi moom fan la wékk ne waa fédération bi dàq bu ko ñooñu wéralee bu indee moom ay kayit mm. wala ay militant wala ay secteur yu prouvé que li mu wax waa tuubaa ñoo ko wax mm. ma wéyal dàq bi ah. dégg naa muy wax sax di am ñu muy kañ mm-hmm. ci part bi man mi ko xam dëgg mm-hmm. da koy waajal pour ñi ànd ak ñoom mm. gëm kooku ndax moom moom xam ne ne mm-hmm. day dem te dina am gàcce maanaam ñu jox la ne la defal nàngam nga mujj ko Mhm. mu yàqoo ci sa loxo mhm. moom loolu lay éviter ba tax mu ngi def tout pour ñu nekk ci parti bi ñam fa desee kës néew mhm. gëm ki muy kañ waaw mais ki muy kañ noonu euh, Déthié Fall la Euh, Déthié Fall euh, moom la def vice-président bi nee na c'est un c'est un euh, xam puissance cérébrale Déthié Fall dëgg-dëgg ëpp na daanaka daal ba su ñun ñii toog fii ci saal bi ak ña ñi ñi ñu ñu seetaan ingénieur polytechnicien polytechnicien ak leen daal moom wóor na ma mm. njàngam école moom ba mu ko doon jàng mm. man xam naa ne xerañ na ci la mu doon jàng. waaw ndax boo demee ba nekk ingénieur polytechnicien quand même jàng waaw mais salle bi ay ingénieur rek moom ci boppam wax dëgg yàlla sama rakk la. mais kon yow da nga bëgg yow dama ko xaw a yërëm. ndax lan xam nga tax ma yërëm ko fi nu sawaay. moom sax xam naa ne temps bi du may Idrissa pour mu jaare la ko fa. ndax ñun danoo yàgg ak moom te moom dootul yàgg li des ak moom dootul bari. waaw man loolu laa bëgg xam li nga naan temps sànq. bi nee naa mooy lan loolu Idrissa fan lay waaj a dem lu ñuy waaj a def non day bàyyi Idrissa bàyyi politique bàyyi réew mi non man mos na maanaam moom day bàyyi xam nga lu tax day bàyyi ah. dootul jël ñaari dërëmam di ko def ci élection bu ko wóor ne du am trois pour cent ah. man xam naa ne moom day baana baana rek lay def politique bi moom baana baana day commerce rek bu ko wóoree ne lii du ci defee mille francs du ci am nangami conseiller wala du ci kii day day préféré jël billet avion dem. dem tëdd nalaw si wenn benn wenn hôtel. dem defi ski. <laughs> kajoor maanaam surf la. kajoor kajoor bi def ski ci glace ay góor yu yooyu <laughs> ah, ah. nga loolu day doon <laughs> moom yooyu la bëgg. da <laughs> sa Idrissa nag dëgg dëgg tubaab la daal naanaan la daal Idrissa la moom yàlla xorom moom yàlla defal na ko. non non xorom la moom moom kooku ah, xorom la. am nga doon président ak ndaanaan ñaari affaire la. <laughs> du benn président rek <laughs> dëgg dëgg. Ah, non non naan maa ngi fàttaliku. moom non ah, Macky Sall moom bon. rafetut. waaw ak moom xam nga dugg góor a yiw. waaw waaye moom la nit ñi wóolu. dëgg la de waaw loolu. Idrissa gisoo ni bopp bi toll. taxut kenn wóolu ko <laughs> taxut kenn wóolu ko am na 14 après wàcc ba 7 taxut kenn wóolu ko Ablaye Wade amuloon karaw ñi wóolu ko Senghor gàtt ñi wóolu ko moom kenn wóolu ko. waaw yërëm naa ko léegi euh, euh, euh, mais mais mais yaa na Idrissa kenn wóolu ko ñu bëri Idrissa dafa am yu bëri yoo xam ne ni niñ dañ koy tuumaal te ndeysaan saa saa dafa interview dana fexe rek ba xaw din tuuma tuuti tuumaal lañ ko temps yee passé 74 milliards ah, yooyu mu ni pat noppi ke waxul porté wu plainte ne pat noppi man mii sa émission fii nga toog la la la la Mame Mbaye Niang de la jeunesse et de l'emploi toog

ñooñaa ko inspiré <laughs> waaw moom léegi suñ ko jéeñee lu mel noonu mm-hmm. mu bëgg jël Sénégal mm-hmm. ak Sénégal li fi coono yi bare ñu ne am nga ñaar fukki compte ak ñeent mm-hmm. yu fees dell ak xaalis nga dem wuti ko bitim réew ñu tuumaal la ko te nga bëgg ne damay laaj Sénégal waa doo dem porte plainte waaw mu leer mu leer man daal maa lay waxal leen lim naan jusqu'à l'extinction du soleil maanaam ba jant bi di fay su porté wut plainte moom du set. ab dara dëgg la non loolu moom leer na. daa war a dem nag yóbbu ñooñu ci yoon. waaw ah, yëf yi leer waa Touba di waaj a yóbboo ci yoon. <laughs> maanaam nit daal bu ma waxalee nangam. da nga koy mooy leer lii mooy comme ça mu leer. waaw teg teggi tuuma la. Ah, non non non beneen tamit non te euh, gis naa tamit na euh, ci ci beneen tuuma boo xam ne ñu ngi koy teg euh, boobu tam ba tey ma ngi cee ma ma ngi cay leeral xam nga sa ñu beneen ne diplôme yam naan ni mu ñu ci anglais yeeg ay j'ai fait un master j'ai un ma nangam j'ai un MBA un PhD xam dafa man daal ak ay métiers yooyu mais mais. jarul guddal xam naa fi nga jëm dama ah. Abdoulaye Wade bi ma nekkee ci cabinet am traduiral naa ko ci anglais CVM d'ailleurs soxnaam si da doon wax naan Ablaye est le plus diplômé du Cap au Caire. Mm. boo xoolee CV bi nag lu neex a weddi. waaw waaye man de CV Idrissa wax dëgg yàlla mosuma koo gis. yow mosoo gis CV Idrissa Seck. xam naa ne daal lycée Lamine Gueye. Mm. yaa xam naa ne fa amee bac. waaw waaye ba mu demee Paris. Mm. ak fépp fu mu mos a jaar mm. musuma gis ñu ne diplôme sàngam mm. am na ko mm. wala ci at sàngam musuma koo gis fenn musuma gis ñu bind ko moom daal dina wax ne consultant la waaw naa nee na euh, euh, jaar na euh, benn cabinet PricewaterhouseCoopers xam nga nit ñi sax affaire yooyu noonu nit ñi dañ dul toppee kenn ngir diplôme waaw ay jaame mais militaire la fetal la man te teewul doon na président de la république. dëgg la donc nit ñi toppee ñu kenn xam nit ñi lu ñuy toppee nit. jikko. walaay dëgg la da ngaa bëgg a doon président. si su jikko lañ lay toppee nga yërëm nit ñi. walaay surtout nooy animé équipe. moom nag wane na ñàkk xarañteem ci animé. Mm. ab équipe. parce que équipe bu mu yor ren bu déwénee. ñëpp ñëpp mu changé bàyyi. waaw mais mais dama lay nettali beneen affaire. waaw 2007 euh, dafa defoon 250 propositions pour redresser le pays. Mm-hmm. ma dajeek benn waay fukki fan ak juróom ci ginnaaw mu ne ma man de seen waa ji xam nga lu tax ma ba ko ma ne ko déedéet mu ne ma man sax de mosumaa toog ak moom mm-hmm. waaye dama ànd ak diw mm-hmm. liggéeyal ko affaire bi ba jox ko ko ba ñu jox ko ko mu ne américain yi ñoo ko mu dem ci rajo bi ak télé bi ne ay américain seede yàlla euh, ne ñoo ko defar maanaam amut kóllëre hmm. ma ne moom noonu la mel dafa yaakaar ne su waxee ne américain yi la hmm. day ëppal poids loolu complexe la waaw ah. kon yow kon yow jàpp nga ne complexe moo tax mu mu ñu xaw a reyeeg naa price xawut def naa am naa NBA def naa prise tonne mais ay 6 mois la mooy prise tonne ba mois yi ah, rek yooyu ñu def section yooyu de formation yu ndaw mois rek man def naa ko ah. xamoo ne def naa ko. mais mais pourquoi moom mu am. def naa def naa Angleterre def naa Écosse ah. américains yi yóbbu nañu ma fi département d'état ñoo ma tànn ci Afrique. 5000 vingt 26 yi ma bokk ci. Mm-hmm. def naa ko États-Unis te taxul nga nga ko. waaye loolu nit ñi toppewuñu ma loolu. xam nga nit ñi lu ñu may toppee. Mm-hmm. mooy man nu ma taxawee ak ñoom. te moo am solo bu dee làkk anglais moom. Mm-hmm. baane baane yi sax léegi dañu gis nga kii bu la làkkalee anglais. Mm. da nga naan Angleterre la juddoo mi ngi nii. <laughs> sama maman bu jekk bi bac plus deux la am xaw ma trois mais elle a les pays du monde. <laughs> jël ma sama maman bi. voilà donc mais mais mais mais mais Oumar euh, euh, euh, xam nga ci ay jamono ñu bari ay analystes yooyu doon nañu wax ne Idrissa il traîne beaucoup de complexes lay lay vraiment c'est quelqu'un boo xam ne comme xam nga yu bëri nag mooy ni frustration complexe yu am na ñu bëri yoo xam ne wax nañu ay complexe physique ay complexe sociologique ak yu mel noonu donc donc yooyu noonu yëpp euh, ak euh, euh, ni mu ni mu ni mu ni mu gëmee ni mu nawee ñuy làkk ay tubaab ak làkk ay anglais ay ñoom Déthié Fall bi mu ni politique polytechnicien la diplôme ceci cela donc yooyu noonu est-ce que jàpp nga ne est-ce qu'il a ce que nekk na à l'aise ak boppam moom ci boppam est-ce que amul ay problème intrinsèque. am nga yaa il y a six ou sept mois. wax naa ci aspect bii ngay wax nii. dama ne moom moom ku fonk ingénieur la. xëy na nag bu sañoon. doon ko. doon ko. ndax li muy wax ci kii nii daana ko wax ci Omar Gueye. waaw nga dëgg. daana ko wax dañ daan toog maanaam Omar Gueye tu as la rigueur parce que toi tu es un ingénieur. <laughs> yaa amee dégg moom ku bëgg affaire yooyu donc xëy na li mu bëggoon doon. waaw te doonu ko gisee ko ko doon. bon mën naa am day def transposition. waaw je crois waaw man na fexe xale yi góorgóorlu rek. waaw noonu la xale yi doom ngi jàng na leen ñaanal. bu ingénieur comme ça dootu ko wuti ci biti. waaw <laughs> léegi léegi loolu am na solo li ñu dese ci waxtu bareetul euh, ma ma ma tegal la nga xam ne Ibou Diouf ànd euh, jatu Njaay mi sama doom yi dama moom doon nañu ko wëri ji ci askan wi mu nekk ay laaj yoo xam ne askan wi moo la ko jébal di yaakaar nag ci yow ay tontu yu leer ma jox la nga xool. waaw euh, asalaamaaleykum man maa ngi tudd euh, Mansour Seck maa ngi liggéey fii euh, assemblée nationale. waaw Pape Camara assemblée laa nekk. man maa ngi tudd Ibra Ndiaye voir à l' assemblée nationale. man question bi ma doon laaj député Oumar Sarr parce que boo xoolee assemblée booy ñëw maanaam da ngay ñëw ci parti politique te boo xoolee dafa ñëwoon ci tuuru réew mi te boobu ba léegi dafa ay activité maanaam sax di défendre partem ci benn côté man gisatuma ko woon te gis lu jiitu lu jiitu euh, législative bu njëkk bi dama ko gis muy défendre euh, partem bu baax a baax mais comme partem dañu réunir ñu ne dañ koy génn ci parti bi bon ma di comme parti est-ce que conscience am dina ko may mu di continuer. dama laaj yow gis-gis si dialogue dialogue bi ban position nga waa ak euh, ban avis nga siy joxe pour ñu mën a xam ci situation politique Sénégal ak fi nga dëkk sa base. Euh, honorable maa ngi lay laaj sa taxawaay ci diggante yow ak réew mi comme comme bi ci mbala am na sa diggante ak ñoom lan mooy sa taxawaay. ndax da sukkandiku ci règlement intérieur assemblée jàkkaarloo ak ñoom wala da ngay dem ak ñoom ci si parce que ñaari yoon fa am. grève bi bëri na syndicaliste yi ñi nga wax président di na si loxo am na xam ne aussi ñi ko wër que yow si nga si nga bokk maa ngi fi xalaat daal xaar sa position ba xam loo si mën a fournir pour mu am avancement. waaw mu mel ne am na laaj yu bëri yoo waaw euh, ñaar laa bëgg nga tontu ci. gën a bi ma jàpp moom maa ngi leen di sant ñoom nag xam naa leen sax maa ngi leen di sant ci laaj di leen nuyu au mm-hmm. di wax ne problème mu mandat député. Mhm. bi ma doon. Mhm. du réew mi moom ma fal. Mhm. ndax am na sax ñoo xam ne ñi nekkatuñ ci réew mi fi mu ne. te ñu ngi assemblée. maanaam ñun bi ñuy dem ñi nga xam ne militant réew mi lañu. bokk ci groupe Benno Bokk Yaakaar. fukk lañu woon. fii may waxee yow nii. wax dëgg yàlla man maa def li nga xam ne moom la constitution bi santaane coalition de parti la ñu wax. Mhm. wala parti man nag parti yóbbuwuma assemblée. Mhm. man coalition bi moo ma yóbbu assemblée. mu mhm. ngi tudd Benno Bokk Yaakaar. képp ku nekk AFP wala APR wala parti socialiste wala réew mi. am na sax yeneen parti LD PIT et cetera et cetera ñoom ñoo boole falma muy benn loolu mooy ci wàllu yoon waaw te man wax dëgg yàlla maa ngi assemblée démissionné wu ma. ci sama parti bi nga xam ne mooy réew mi. muy ñaareelu firnde. tey même bu ma génnoon ci parti réew mi. wax dëgg yàlla lu tee ma nekk député parce que constitution bi man visé wut li ma ne. visé wut li ma def. benn ñaareel bi man parti bi wax dëgg yàlla mérité naa ci lu ëpp poste député liggéey naa ci. maanaam Idrissa Seck falu ma mais mais justement pourquoi Idrissa Seck mosul laa fal. Euh, da nga ko doy wal ba da nga am ay diplôme bi nga ne wala lan. non du loolu cest à dafa xamoon ne mën naa jox ñëpp xaj ma te du ko fa wàññi dara loolu moom wóor na ma ne loolu rek la woon. xaj ma mën naa jox ñëpp xaj ma te du ci mere du ma ci def dara. dara ba nga ànd ak Idrissa Seck bëggoon dara. no bëggoon nekk ministre bëggoon nekk DG dara. franchement man lenn rek laa doon bëgg mu am. Mm. moom na doon président maanaam man soxlawuma lu ma dama daan dem ci sëriñ sax. mu ne di wax waxtaan ba kii ma ne ko bala nga may ñaanal ñaanal ko mhm. donc loolu yàlla moo ma bind noonu mhm. su ma xasee ànd ak yow dama lay jox lépp ba mu jeex su may jël nag du ma fa bàyyi dara <laughs> <laughs> maanaam dama dem ba yàgg ma ne est kii sax mhm. eh, jàpp na ne man nit ku am fulla laa fekk bëggeel gi moo ko bëggoon ah, waaw moo foor maanaam fonk gi jox ko cër ba mu jeex takk ba moom damay doon dem ba jàpp ne sax kii jaral na ma suma bakkan mhm. pour défendre ko mhm. ay jaar-jaar yu bëri yoo xam ne yi jarul sax ma koy nettali mhm. mais nag réccuwuma ci dara parce que li tax ma ko doon def Sénégal moo taxoon ma jàpp ma jàppoon ne xëy na moom mën na koo régler ba ma demee nag ba mu wér ma ne kii damaa juum ma daal di taxaw ma ne ñi ma njëkk a dem ndekete ñoom ñoo wax dëgg waaye ñoom ni ñu def man du ma ko def man du ma dem mhm. ndax lii kat wax dëgg yàlla noo bokk tabax ko mhm. su ma ko bàyyee ak moom ñàkk fayda la mhm. dama koy xëccoo ak moom te wax nga dëgg nag léegi beneen laaj bi euh, nga xëy na mooy avant dernière laaju émission bi euh, te te euh, suñu xarit boobu nekk assemblée laaj la ko muy ci wàllu éducation yow enseignant nga gis nga crise bi na mu fa demee Euh, état bi euh, grève boo xam ne plus de quatre mois maintenant ña nga ca état bi euh, réquisitionné enseignants yi di menacé plainte ñu salaire mois de mai bi ponctionné na état ponctionné na ko lépp rek pour ñaax leen ñu dem ci ñu dellu ca classe ya jàppale quand même élèves yeeg seen parents yi waaye gis nga daanaka ñoom dañoo dàbbaliwaat encore yeneen grève donc man solution définitive laay laaj ndax yow am nga ci ay proposition man nak wax deug yalla tuuti naa jàpp ne man man na génn solution ci problème bi ndax dama seetlu ne Senghor amoon na problème éducation Abdou Diouf am ko Abdoulaye am ko Macky Sall am donc dafa traverser régime yëpp donc problème bi problème structurel la du problème conjoncturel maanaam président bi moo fonk njàngalekat yi wala loolu kenn ku ci nekk ci ñoom nag am nga ci part de responsabilité mm. ndax dangay fekk benn situation yaa may dégg mm. nga war cee jël ay mesures yu radicales mm-hmm. mais tournoi bi dëgg dëgg dëgg moom 2000 la mm-hmm. man 2000 nekkoon naa ministère éducation mm-hmm. maa jiitu woon ci ñuy xelal ministre bi donc dama daan régler ay crise bu enseignants yi grévé man maay wax ak ñoom et cetera waaye li ma jàpp daal mooy yombute a régler lu dut mm-hmm. enseignant ci seen bopp mm-hmm. ah def patriotisme ak kii ci seen bopp maanaam bés seen xol bëgg-bëgg mm-hmm. ñu fàtte ñoom seen bëgg-bëgg dem jublu ci xale yi ñu ubbi ay waxtaan yoo xam ne yow mii sax da nga ca joxe sa xalaat ñu bañ koo bàyyi ak yi rek ak gouvernement yaatal ko ndax man bokkoon naa ci ñu doon dox jàmm seen diggante te fi mu ne sax li ma jaaxal mooy ban fay jógee. daanaka jubóowuñ ci lépp. Mm-hmm. lu tax nag coow li amaat. Mm-hmm. ba fii may waxe yow dama cee xaw a am ay kumpa. Mm-hmm. parce que prés euh, kii gouvernement bi. satisfaire na yépp li ci desoon mooy lu ci nekk ban waxtu lañ koy def. ak kañ lay pare. c'est vrai nag. bu dee mbirum koppar la budget bi du man par exemple loo xam ne bii 26 milliards wala 30, mhm. mhm. ñu jëlandoo ko rek jox ko mhm. ndax njàngale mi mais il faut ñu faj nit ñi il faut ñu defar tali yi il faut que il faut que il faut que donc euh, dina jël temps pour que problème yépp réglé wu ma bëggoon daal li may lancé appel suma collègue enseignant yi ndax enseignant la comme ñoom moo ñu def benn sauver xale yi ak seen année scolaire et c'est fondamental ñu seet après quoi euh, en tout cas j'espère que ce ce appel bi euh, dinañ ko dégg euh, fi ñuy jeexal émission bi nag mooy euh, fa ñu dooree rek ci politique bi ñu tëjee kon nag ak moom itamit euh, mu aaju nag ci yow bientôt un an 13 juin 2014 2015. incha allah enfin ci nga ci nga ci nga sumboon lii ñi ngi waaj dugg kon ci beneen 13 juin 2016 mi un an nga nekk ba tey yaa ci sa refondation bi bon doon wax. rek euh, ñaari point yu gën a fondamental euh, yoo xam ne ni tey euh, satisfaction la ci yow nga xam ne yaa ngi ci sa trajectoire bi nga jox sa bopp yaa nga ca bi ci jikru mooy fii ne mm-hmm. mooy màkkaanu refondation bi waaw nega ni daaw amuñu ko woon mm-hmm. ah naa fi sax benn néeg boo xam ne mm-hmm. bu gan gu sori jógee ci militant yi man fee ñëw fanaan fi mhm. ah parce que léeg-léeg benn responsable ñëw xaw a tumlanke yu mel mhm. noonu mhm. donc lii rek satisfaction la muy benn eh, ñaareel bi itam bu fekkee da nga tàmbali mbir yow donc te weer wu ne wala bis bu ne wala ayu bis bu ne nga jot sa téléphone nit ne la ah man de wax dëgg yàlla liggéey bi nga nekk dama cee bëgg ñëw soobu ndax li nga ma doon wax gis naa ko dund nañ ko loolu mooy satisfaction bi. Mhm. ci gàttal daal lim la doublé na. Mhm. département yi nga xam ci refondation bi. Mhm. ma département ak man. ma dem département man. département ñetti man. ay commune mois de juin 2017 duñ pour ma congrès. wàcce ñi yore maanaam ñu fal ñeneen njiit yu bees mm-hmm. mën naa am duñ fa duñ fa yegg mm-hmm. ndax rythme bi mm-hmm. mën naa am bu ñu continuer balaa nawet bee jeex ah,

parti du pour rek defar président de la République parti dafa soxla ay député mhm. parti dafa soxla ay maire mhm. mais moom benn poste boobu rek ko ci ñor beneen ñoru ko mhm. doon président de la République moo tax cadre yi ma àndal jeunes yi ak ñuy dama leen ñu leen ñu bokk liggéey nga xam ne ëllëg ki si comme du ñun dañu lëngoo ak président Macky Sall lëngoo boo xam ne ñun dañu yéene moom mu faluwaat ñu fexe ba bu ñuy am député ni ko ñëpp di amee mm-hmm. ñu am ci lim boo xam ne bii dinunu siggil en mm-hmm. tant que parti mm-hmm. waaye est-ce que moom mas ngaa gis mu doon député waaw mosu ko nekk nag pourtant mu Niass doon na ko waaw Macky Sall doon na ko waaw Macky Sall doon na ko Abdoulaye Wade doon na ko waaye moom loolu lépp xeeb na ko moom moom bëgg ministre daal moom daal moom loolu xeeb na président rek lay moo ko intéressé kese mu <laughs> dee mooy gën moom mu dee mooy li gën suñu yàlla ko yàlla may bopp <laughs> on espère mais mais am na leneen loo xam ne dañ ko souvent nit ñi dañ ko koy reproché je me rappelle même Nafsa Diop Cissé mosoon naa ko fi invité muy wax naan euh, Idrissa Seck euh, euh, xamul woon këram benn la fa mos a ñëw xawma ba jëkkëram gaañoo xam yu mel noonu xawma ba jëkkëram gaañoo wala ba muy ba muy mayee sama sama doom jooju Bouchra Sané yow Idrissa Seck daana la seet si daana la nemmeeku daan na ñëw naan si ataaya ak yooyu déedéet wax dëgg yàlla bi sama papa gaañoo de Touba hmm. Euh, taal na oto ñëw fa waaye dina dem Touba nag lu mat ñetti yoon ci at mi mhm. waaye benn yoon boobu man en tant que coordonnateur du parti mhm. mayoon naa ko bu ñëwee mu dem seeti ñu mu bëgg a seeti mhm. maanaam musuma ko wax kan dem sama kër mais sa kër fi Dakar nag mm, bi may maye suma taaw ñëw na mos naa feebar it mu seet si ma ñaar yooyu maanaam moom daal muy ñett feebar naa lu war a mat ñetti weer mu ñëw seet ma te ka ko ko wax sax du ma tudd turam mais moo ko ne yow yow kañ nga gëj a dégg diw mu ne ko xaw ma sax mun ne ko weer a ngi nii mu tëdd mu ne ko yow waroo toog ñaari fan boo ko déggul rek. war nga ko seet mais dégg naa tamit ñu ne euh, numéro téléphone am ñu bëri si yéen amu amu leen ko mais moom moom moom la ku mu soxla. loolu moom man bokkuma woon ci moom. Ah. ndax man moom xam na ne waruma ñàkk euh, numéro téléphone am. Hmm. parce que léeg-léeg nit loo xam ne lii day taxaw tem. waaw ñu soxla ko urgence te. ci bopp nit ñi man maa doon numéro de hmm. parce que sama taxawaay la woon. ak mais donc man il fallait que fu mën a nekk ci àdduna bi. ñu mën a jokkoo wax dëgg yàlla mënoon naa ko jot moom it fu ma mën a nekk ci àddina bi mm-hmm. wax dëgg yàlla mënoon naa ko jot ndax dama ko beraloon benn numéro mm-hmm. boo xam ne bii wax dëgg yàlla su may soxna sax xamuñu mm-hmm. numéro ba anamu léegi an ah, bi mu ngi fi ba tey moo tax soneetul <laughs> numéro bi soneetul kañ ngeen gis ne yéen ñaar daje ci benn euh, maye doomu bàcc gajaga moo doon takk soxna waaye yàlla dogalul sax ñu nuyoo yaa ko nuyuwul wala non. maanaam dama ñëw yaa amoon pour nuyu ko ñemewoo ko nuyu nag loolu sax du loolu dama ñëw fekk jataay bi. Oh. Euh, ci biir jàkka ji dama xawoon a tardé. Mm. fi mu nekkoon ak man fi ma nekkoon. Mm. pour ma yegg fa dana maanaam perturbé. Mm-hmm. Souleymane Ndéné sax moo ma ne kaay nga toog fii ñu ma toog yow tam bi ñu paree nag ba pare wax dëgg yàlla jàpp ma ne waroon na maa dem di ko fekk di ko nuyu. moom it jàpp na ne warta ñëw di fekk si ma di ma nuyu ma dem dugg sama oto ñi ma àndal nag wax dëgg yàlla nuyu naa ci ñu bari mm-hmm. mu dugg ci oto ma dugg sama oto ndax man maa ko mag te ilifatuma ci politique mm-hmm. donc moom moo waroon am yar ak teggin ñëw fekk ma sama toog <laughs> donc comme defu ko wax dëgg yàlla man gisuma gisuma benn nécessité pour pour dem nuyu ko <laughs> waaw léegi jamono ji yow kan la yëf ci yëlëb ci politique jamono yaa yem sa bopp. kenn fu ma. xanaa ñii. waaw gis nga li nu mu neex man yi rek ñoo mën a yendal fenn wala ñu fanaan la wala ki nga xam ne mooy suma allié. président Macky Sall. woo ma ne ma ci lii laa bëgg nga jàppale ma. Mhm. loolu moom mën na maa yendal foofa wala ma fanaan fa. liberté daal daal loolu. liberté. ndax man dama naan tëdd ba 2 heures du matin 2 heures mu yeema ci téléphone ne ma il faut nga wax ak journaliste 5 heures du matin. ñu teg ko 6 heures. xam nga loolu daa metti waaw nga a day xew ci guddi mu ne ma 4 heures du matin na nga fexe su ko defee damay jóg toog sama salon xaar ba rajo sàngam ubbi <laughs> ma woo leen nga xam ne 6 heures bu ñuy ubbi journal bi nit ñi dañ waa kii kañ laaw wax fekk moom moo ma tax a veillé loolu dama ko daan defal boobu moom ma ngay ma ngay ski wala boog ma ngay surf. ndey ba daan koy defal cuuraay mu tëdd. <laughs> macha allah émission jeex na. ñu bàyyi la nga tàggatoo ak Sénégal yi la doon seetaan. waaw li may tàggatoo daal mooy mm-hmm. rafetlu. Mm-hmm. li ma dégg ne président Sall defal na ko. Ablaye Wade jël téléphone woo ko. jël téléphone woo ko. dafa rafet. dafa rafet. man de wax dëgg yàlla. Eh, mel na ni maa ko def. Mm-hmm. ndax jàpp naa ne jàmm moom. ci la lépp xaj. surtout nag da koo seq ak moom. maa ngi koy rafetlu di mm-hmm. rafetlu mm-hmm. li nga xam ne suñu famille politique mm-hmm. muy la famille libérale boo xam ne bii tey ñu dajaloo moom njariñu Sénégal rek ndax jàmm moom bu amee ci suñu diggante rek ñëpp mën a booloo doon benn ñu jël kenn jiital ko comme ni Macky Sall jiital ñu jiitalaat ko mu falu bu ñu paree keneen jël dëgg la su ma sañoon euh, hommage bi Afrique du Sud defal ab euh, kii Nelson Mandela. Mhm. Ablaye du toog fii. Mhm. ñu yóbbu ko Grand Théâtre mhm. ñu defal ko hommage boobu. mu toog ci siisam. ñu defal ko hommage boobu te yéene naa mu jóge ci initiative Pakistan. waaw ah, alhamdulilah alors ñu lay ñu lay bu baax a baax a baax euh, honorable député Omar Sarr euh, yow mi jiite euh, ña nga xam ne ñoo bëgg ñu refondé seen parti di di réew mi di jaajëfal bu baax nag ñi fi jàpp après nga jëlama ak ñi militants yi toog sa xarit yi toog sa nawle yi toog nga xam ne dañoo bàyyi seen lépp waaw ñu leen ñu leen gërëm bu baax ñoom i tamit wax dëgg yàlla waaw ñu leen jaajëfal bu baax ñu ñëw teewe émission émission bi bokk ci li koy taaral ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax euh, di di jaajëfal tamit euh, euh, rek sama papa sëñ Maodo si da baax mun ma man namm ko lool nag dama jége-jége sama xel nekk ci moom ma namm ko lool lool lool lool tamit bu baax a baax a baax sama bàjjen yaa sufi si ah ñoom ñoom fàtt si sama rakk yooyu ah ñoom tabu <laughs> di jaajëfal yéen ñi seetaan dem nag ba ca Mbàkke nuyu sëñ Cheikh Mbàkke sëñ Cheikh Mbàkke sa soxna soxna am ni sama xarit boobu euh, namm na la lool yaa ngi Nigéria xaw ma yaa ngi Londres xaw ma ban dëkk depuis 3 mois yaa ngi wëndeelu nee naa ko prochaine ñun ñëpp nag dañuy ñëw la ñun jigéen ñëpp dañuy laxasaayo nekk ci ginnaaw euh, soxna am jël avion wala euh, première dame sama xarit bi soxna ma dem fay Sall moo ñu luyel affaire teelu ñu rek avion ñu dem jële jële ñibbisi na soxna am namm na la Jatu Ndiaye Abdourahmane Chéri Madame Guissé ah Madame Guissé sama Diouf ah kan laa nar a fàtte Mamadou Dia ya nek ca lumière ya ah Ablaye ah yaa ñu indi fii euh, euh, téye ñu volant bi rek ci mu baax ñu rafet euh, ci montage bi Moussa Sène Chérif Dia nag moom dëgg-dëgg yaakaar naa ni mooy le grand patron de l' émission ndax li yëpp moo ko waral moom mooy invité mooy invité mooy émission ku bëgg a ñëw si émission bi tamit moom ngay woo mooy lijjanti mooy naa man daal amul lu dul rek ñu ne ma Aïssatou suba kii ngay jël may nuyu bu baax nag sama sama rakk jooju Chérif Dia di ko di ko di ko di ko remercier bu baax a baax chef d' édition foofu ca rédaction bu TFM nekk sama rakk bu baax si man sa si man te dama rëkk benn yoon euh, mbokk yi face to face incha allah euh, beneen dimanche nag euh, fekk ñu nekk nag ci ñu um nag koor nag boobu moom beneen taxawaay la ñu fas yéene amaat <laughs> ndax koor moom du du yëpp xale <laughs> mbokk yi ba beneen dimanche incha allah jaajëf Sénégal Siglen Digale, Soumane Digale Ipadjan, Digalé kan lors de la préparation des des de l'MG, je faisais partie de l'équipe nationale qui était partie en France avec les souris les Domingos. Là, nous sommes en finale de la Coupe du Sénégal 1961 au Parc des Sports. Parc des Sports mon le président Senghor dit nous équipe justement Iba Diagne la tàllal ni loxo Amsatou Seck Sangono Souf, depuis 2012 depuis le 22 décembre 2012 sama dirigeant la woon à la Saint-Louisienne fa waxtan ak Iba Diagne la waxtan ak moom ndekete tay gunge Iba Diagne ci bis bi kon ñu déglu Amsatou Seck mi nga xam dafa di gorom di dirigeant. may football katu Saint-Louisienne. Hmm. bu nga xamni bi dafa nekkoon sama xarit di ñew sama. Bienvenue au FC Sens. voilà le club où Bakary et ses frères ont commencé, donc moi et mon grand frère également. Euh, il a commencé le foot ici, il devait avoir 10 euh, ans, même pas 8 ans, euh, jusqu'à ses 15 ans. bëgg ñan la ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal